kaaraange de mar de taali sécurité tribune yéene kaay de ñaari jàngalekat yi day nees tut ñu ñàkk seenu bakkan allahu akbar maa la ko dama ne leen nañu kon seen musiba mbaaba kuma bi nga xam ne kon moo leen dal ay samba surabali yoo xam ne kon ñoo la benn jàngalekat bi day ay mbol de kuur waaw dama ne la ñoo ko yee bi leen jàngalekat ba day jël teg ko ca kaw boppa ba mar de taali yéene kaay gi ne Mamadou Sakho baabu lay wuyoo ak ma demba caam dootuñ fàtte te guddi talaata ji ñu génn kon jàpp àllarba day juróomi samba surabali yoo xam a taaji bi ne bitik waaw dal ca kaw jàngalekat yàlla la wax laa ilaaha illallaah ay booru deux heures du matin la de village bi ñu naan kel kel waaw ca Medina Dakar département wuti awoon la de région wu Thiès ak couvre-feu bi maa la ko wax te ca jamono joojee nga xam ni nag agresseur yaa ngi toj réew mi la tribune yéene kaay nee na ay ñooñu Ousmane Sonko doy ñu ngi leen di ramas ñu ngi leen di jàpp de libération yéene kaay ne dëgg la coowal menace de mort yi nga xam kon ñu koy laam-laamee day waaw jàpp dañ ne ingénieur eh, bi di Dayru Thiam waaw teg nañ ko loxo day mardi tali Birame Souleye Diop ci direct news ah, ah. taaral gi nga xam ne kon moom la nekkoon day génn na ca parce que administrateur Pastef bi nee na yéen waa Pastef def leen attention de bu baax baax te ñi nga xam ne ñoo rax infiltré ñu te jàppale ne gis nga Macky Sall mi la day continuer kon di jàppe ba léegi ni lée ah waaw Birame Souleye Diop ne waaye bu leen wax te seen avocat ñëwul laa la wax man nag rajo kankan di rumeur yi nga xam ne moom la ñuy wax ci man ni lée ak sama jabar dara nekku ci dëgg laa la wax parce que man maa ngi nii saa yi bu ma dikk woo damay dikk Birame Souleye Diop ne tey ma wax leen ñan ñoo naan may di réer ak di daw mooy ñi xam ne dañoo def dara coupable yi waaw sur ce année waaye yow Birame Souleye Diop li nga def rafetul Birame Souleye nee na daa yoon ay téléphone am ngir mën a concentré ak jublu ci ay farata waaye yow Birame jëkkër joo xam ne ab responsable la lan moo gën a nekk farata sa jabar kon ñu teg ko loxo te demoo ca ngir ñu bàyyi ko damay laaj rek yéen kaay daaw da ci amine ñetti fanu yàlla yoo xam ne day Birame Souleye Diop demul seeti kon Patricia Mariam Gandulam gi di jabar gi waa lii jaaxalu leen vox sob li ne grand patron di Ousmane Sonko day waaw daal di nay wàccee démb université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru laa la wax uh-huh. ak Covid bi dama ne a mbooloo ma nga xam ne moo génnoon démb kon université gëré doy na yaa nga riir topp njiital Pastef bi leese ko yéene kaay ne dëgg daal sa waay mbooloo ma nga xam ne ñoo nekkoon te université gëré topp nag Ousmane Sonko di way soo ko laalee soo dinaa la dóor soo ko eh waay lii la étudiants yi doon wax laa la wax naan damane ne ñin Ousmane Sonko la ñu gëm dama ne la étudiants yi ci boppam ko nii la ñu fa nekke woon yéene kaa gi ne waaye étudiants yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo ànd ak waa APR day waaw dañoo mer démb ca université bu Fuuta laa la wax nee nañ ñi ngi xaaraat ba Ousmane Sonko ñëwaat ca université boobee moo lii ragal ngeen rek 24 heures yéene kaay ne dama ne leen démb kay Ousmane waaw bal la dóor waa nguur gi ñu wàcc de mar d' Italie dama la université wàcc na étudiants yi ci boppam di xam ne fii ñoo ko moom fii ñoo ko moom la ko tijee yéene kaay ne dëgg la étudiants yi démb day wàcc nañoo mbooloo de critique yéene kaay ne bu doon atel la ñuy def ci mbedd mi ne Ousmane Sonko gagné na le procès populaire dama ne ko ñu ngi laam-laamee nag am na problème benn jabaram de critique yéene xamoon ne Ousmane Sonko démb PS ba mu doon gasal nguur gi lay waaw nguur gi daa rëcc ah, ah, xam ne watalu nañu ab loi tere am ndaje Ousmane Sonko ñu ngi jàpp ay nitam daa mel ni daa bëggoon ñu jàpp ko kon démb ah, waaw parce que la xew démb ca université googu mais buur da koy tere wàllum daje ak bi waaw moo tax police yi ne tek nguur gi tamit mel ne dañoo Ousmane Sonko daf leen bëgg piège ñu daal daw deuxième na nooy Guy Marius Sagna day ci bi waaw gis nga Fatima mi ñu ni dani ma loxo bi nga nañ ko loxo ak jabaru di Birame Souleye Diop dara de nguur gi daal bëgg tourner suñu yi rek divertir ñu Guy Marius Sagna ne xam nga Macky Sall mi ne lan la démocrate maanaam waaw leen jàpp lii tax nag Macky Sall mi la daal di teg loxo nag suñu Fatima Mbengue mi waaye nañ leen lànk résistons nañ leen bañ refusons nañ leen xeex luttons Barthélémy Dias ci yéene kaay gi waaw ne gis nga buuru Fatick bi la li ma koy xamal moom Macky Sall mooy trop c'est trop lu ëpp na tuuru te jàppal ne gis nga day dañu ko fii tere du fi amee de maa la ko wax Barthélémy Dias ne lii Macky ni la inadmissible mais lii kenn xamul lii lan la la wax te kenn mënu koo tëdd ci suuf ma wareef la résister est un devoir sur quotidien ne bokk ci wàllum ñaq gi lee ci covid ji waaw loolu it wareef la dérmines yéene kaay ne campagne yu ñaq bi day 23 février lay commencé critique yéene la ñu wax daal mooy na mbir mi yëpp leer te ànd ak fulla ak fayda Dakar Times ne non Abdoulaye Diouf Sarr kay ci lu leer dong la yëngu ak fulla ak fayda l'observateur ne yori nag hôpital yi day ci mbas mi waaw ñi nekk Sowétas gis diggante dund ak dee caanama lañ nekk de mardi lal manqué na nit ña sonn nañu dee gaa nga fa waa ji dee nee na man médecin laa waaye sama baay ci samay loxo la dee allahu akbar la ilaha illallah dalal jàmm tuuba urosogi mais la fa xew doy na li doy waar kay leese ko yéene kaay nee na Mariam Faye Sall ma demoon ca Doudou Wade doon ko jaale day waaye ndekete Moustapha Diakhaté mi de ak première dame bi waaw ma ne la ko mburoog soow de maa la ko wax Fay Sall mi lay la muy ŋàññi jëkkëram Macky Sall ak nguuram gi technique gu oto yi la di taas waaw scandale financier boo xam ne day la mar di tali musiba kay mooy barça bal jàq ji évidence yéene kay ne Modou Fall day directeur emploi waaw recevoir na benn délégation organisation internationale wàllu migration ji source ané démarrage officiel ba dee audit officieux bi waaw ñeenti expertu cabinet EA mbir mi léegi leer na kon de xanaa léegi élection locale am Barthélémy Dias ci Vox Populi waaw ne dama ne élection ci boppam Macky Sall da a Russie waa dëkku Vladimir Poutine gëlee dellu siwaat nañ de dellu siwaat nañ ca pétrole bi de <laughs> tey suñu pétrole bi lee tubaab yi teg nañ ko bët de waaye nag luñ ko teg bët teg bët teg bët teg bët teg bët teg bët teg bët na ko Macky Sall ak waa këram leeral ba pare rek parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek boo paree mën a la alaaji tëjal